merci beaucoup Adja Astou maa ngi lay fay et puis je te renvoie aussi le compliment tu es magnifique tu es très sublime namoon naa la mais également de la de la 7TV en ce mois béni de Ramadan vraiment te kese la maa ngi leen di nuyu bu baax a baax et puis euh, leur souhaitons la bienvenue sur la 7TV di profiter aussi du Nuit, une invitée euh, du jour, euh, le maire. Grand plaisir de l'avoir sur ce plateau. Et j'en profite aussi pour saluer euh, Mamadou Awendiaï, en lieu et place de MNF Mankayor, on l'a et c'est pas plus mal. Ben voilà. <laughs> c'est pas plus mal donc voilà tey ñoom la ñuy àndal xëy na su kanam yeneen chroniqueurs yi nga xamante ne yàgg di partager ak ñoom euh, plateau bi dinañu euh, fekk si ku ci mel ni euh, Mansour Sy Sy ak ki nga xamante ne moom mooy Amadou Diouf donc xam naa ñoom dinañu ñëw si kanamee daal di dabe waxtaan wi alors Mamadou Awa ma bàyyi la ak suñu invité rek nga daal di koy dalal. jërëjëf Adja maa ngi lay remercier di nuyu aussi euh, Tabaha Alioune Ndoye monsieur le ministre ñu ngi lay remercier ci li nga nangu wuy si euh, sunu invitation je rappelle que nous recevons tey Alioune Ndoye nekk ministre de l'environnement du développement durable et de la transition écologique nekk maire bu Dakar Plateau euh, depuis 2009 bokk parti socialiste Alioune Ndoye nag doon na koo xam ne les Sénégalais dañ ko xam miin ko depuis quelques années bu ma nee quelques années mooy xëy na l'avènement en 2009 avec Benno Siggil Sénégal bi ñuy remporté collectivité locale yu yu bëri mu nekkoon benn razzia boo xam ne ci la ñu bëri implanté wu moom nag euh, li ko wutalee ak ñeneen ñi mooy que ne euh, depuis lors euh, mi ngi occupé bopp commune bi mi ngi ko gagné gagné na ko ci Benno Bokk Yaakaar gagné na ko ci Benno Siggil Sénégal gagné na ko aussi ci taxawu Sénégal mu doon loo xam ne lu raar la parce que en bi mu ko gagné dafa ànd ak taxawu Sénégal ñu bëri jàpp ne Khalifa Sall moo ko yóbbaale mais après cela il a pris une boo xam ne dafa waroo peut-être ak gis-gisu Sall deux mille dix neuf ci la élection waroon am mais deux mille vingt deux la am mu gañawaat nekkaat maire bu Dakar Plateau Alioune Ndoye nag il s'est engagé en politique en deux mille choisir rejoindre l'opposition après ñu dénk ko li nga xam ne parti socialiste ñu sànni ko ci kanamu ñi xëy na xam-xamam moo tax parce que la pêche les fameux eh, li mu ko sax xam ne bëri ci secteur boobu ak les licences de pêche mu joué ci bu am solo coow li tey jii nii nekkaat d'actualité avec euh, ñi nga xam ne ñooy les candidats les pêcheurs de le recevoir à chaque fois xëy na dinañ ci jox avion Aliou Ndoye ñu ngi lay remercier bu baax a baax la présentation jeexul parce que xëy na am na lu bëree bëri loo xam ne euh, egguñu ci mais li am solo rek mooy que ne euh, ñi la xam ak ñi la xamul ñëpp nangul nañ la benn rigueur mais également sa benn ancrage wàllum politique ñu ngi lay nuyu bu fekkee am na loo ci bëgg a dolli maa ngi lay fay bu baax amaan ah, amaana xëy na def nga résumé bu baax. mais ci wàllu peut-être engagement politique c'est vrai euh, man euh, comme ni nga ko waxee je viens du secteur privé. te boo nekkee secteur privé am yenn responsabilité yi souvent da ngay ànd ak discrétion. Euh, mën a yor direction financière benn euh, groupe boo xam ne principalement état lay liggéeyal ba pare xëy na di fës yenn fës yi moo tax. souvent nit ñi dañ naan sax est-ce que jàng na parce que xamuñu sama parcours. <laughs> est-ce que kii mas na liggéey dañu foog ne politique rek la. mais ni nga ko waxee politique maa ngi ci dugg en 2004 fekk parti socialiste def 4 ans d'opposition. Mm-hmm. ma toogoon di seetlu Sénégal maa ngi fi ñibbisi quasiment tàmbali fi liggéey en 96. boobu léegi dama nekkoon sama activité privée ba pare avant je m'intéressais beaucoup à l'associatif di toppatoo un peu tout ce qui est enfants handicapés et cetera. Mm-hmm. doon ci yëngu bu baax. 2004 euh, nag bi ma analyser Sénégal ni mu tëddee ak fi mu doon dem analyser tuuti xëy na ñi yoroon réew mi ma jàpp ni euh, war naa ci dugg parce que dafa amoon ci ay wàllu associatif yu ma dajaloon yu bëri yoo xam ne dafa dafa gën a ubbi sama bët ci wàllu doxalin en tout cas nguur itam ci sama liggéey ñi ma daan jëflanteel euh, xam ni suñu société dafa nekkoon sur sept pays de la sous-région ci lañu ñu woon kon mu joxoon ma benn vision boo xam ne peut-être ñeneen ñi amuñu donc 2004 laa ci dugg Euh, ku ne dañ maa propulsé xëy na da ngaa xamul parce que 2004 bi ñu dugg parti socialiste amul lu mu proposé. Mhm. ñun koy dañoo ñëw indi suñu doole suñu xam-xam suñu alal euh, pour que parti bi justement teguwaat ci yoon mooy bi Tanor Dieng di euh, théoriser le nouvel élan. justement ñu bëre tey ñu ngay dégg ci langue politique ci wàllu parti socialiste. temps yooyu la ñëw wala après. Mhm. Euh, ci ñoo xam ne tey sax xëy na ñoo yor yenn responsabilité. mais doguma la justement 2004 bi ngay ñëw fekk na PS am ah. euh, euh, a xam mooy ba moo tax loolu gaaw parce que aussi souvent ça ne se passe pas comme ça. qu'est-ce qu'est-ce qui l'explique. wala xëy na xam-xam bi moo doy ñu ñëw man et c'est ça c'est ma différence peut ak cadre yu bëri. Mhm. Euh, man sama sama famille famille politique la ci ñi sos parti bi la mais ba bi may dugg 2004 politique intéressé wu ma woon en tout cas d'une certaine avec une certaine vision. Mm-hmm. Euh, du ñëw ma rek ñu dénk ma. c'est trois ans après. voilà quelques oui. années après 2000 je ans 2007. Mm-hmm. oui euh, comme ni nga ko waxee nag boobu parti socialiste ñu bëre dañ ko bàyyi woon. Mm-hmm. vraiment cadre yu bëre. son bureau politique était dégarni à peu près je crois de 80 pour cent. du euh, am les élus ko base yi xam nga parce que ay base la base boo dem souvent responsable ba dem na bu responsable góor demee responsable jigéen dem militants yi dañu xaw a tumurànke mu nekk lu xaw a doy waa tuuti donc ci lañ ñëw nag di liggéey di liggéey ak ñi fi fekk parce que man li ma ci gënoon a neex te pousse ma ci dama ne ñii fi des jàpp naa ni ñii conviction moo leen fi bàyyi. Mm-hmm. ñii euh, ñi nga xam ñu jàpp seen parti seen gis-gis. jàpp naa ni ñii conviction moo leen fi bàyyi te man loolu aussi moom ma intéressé. ci vous êtes parvenu à réaliser quelque chose en 2009 ci élection locale yi. 2009 la ñu dem boo bu ngeen di fàttaliku euh, on a fait beaucoup de choses ah. parce que ñun quand même assise nationale tout ça ñun la woon ah bon les gens souvent boo boo tegul sa ci kanam rek du ñu xam mais il faut aller dans les documents des assises nationales dem dem ci ci liggéey bi nit ñuy def euh, ça fait énormément de choses ba justement cette coalition Benno Siggil Sénégal qu'on a eu à qui justement ak dajale le maximum ñi gënoonu xarañ ci opposition bi ba justement ni nga ko waxee tout à l'heure def percée bi ñu def o local de 2009 euh, am na loo wax tout à l'heure par exemple man parti socialiste laa dugg ba fi may waxoon ni mosuma am beneen carte parti mhm. souvent tey euh, démb tey ànduñu c'est que da ngaa dem bàyyi parti socialiste <laughs> man ma nekk ci parti ah, socialiste mooy sa diggante ak taxawu Sénégal quel que Euh, man sama constance mu ngi pour l'instant ci parti socialiste parce que politique c'est un choix donc je me suis investi par choix et par euh, may bi ñuy def da nga ne Benno Siggil Sénégal 2009 élection yi ci ñu ngi dem effectivement Taxawu Dakar mais damay fàttali Taxawu Dakar était béni par mon parti daanoon gain da daan wàcc man di campagne ak ñun ñoo daan ah, ànd. à l'époque jafe-jafe yi tàmbaleegul diggante PS ak euh, Khalifa Sall. ils étaient tous du PS okay. j'étais du PS nous étions ensemble on a fait notre coalition électorale parce que da ngay yaatal. il fallait pas coalition bi nekk simplement euh, PS. Mhm. donc mm -hmm. il fallait ñu yaatal. parce que sinon il y avait la LD il y avait d'autres formations. il y avait les autres formations mm -hmm. notamment de gauche donc mais sans aucune euh, je dirais euh, benn réero ak suñu parti la preuve mooy que ni Tanor da daan wàcc ak ñun ci baat di campagne. Mhm. kon xam nga yaay la bénédiction un peu de la direction du parti euh, ñu demaat ci yeneen élection yoo xam ne euh, peut-être bokkuñu gis-gis may fàttali nag suñu opposition metti na woon na ah. souvent damay dégg gars yi fii ñun dem nañ ba boycotter ay législatives. Mhm. c'est-à-dire ay législatives en 2007. waaye amoon fii zéro représentant. c'était une erreur avec le temps. non pas du tout parce que loolu bu amuloon assise nationale xëy na du am. ak ah. développement bi ni muy amee parce que xëy na loolu bu ñu ko defuloon euh, li ñu gagné par la suite du mën a nekk. Mhm. maanaam euh, li ñu am ci kaw Abdoulaye euh, le gouvernement du président Abdoulaye Wade xëy na du ñu ko mën a am parce que aussi parfois y a des il faut y a des sacrifices au niveau de la démocratie. Ah. donc loolu parcours la boo xam ne xëy na tey mu ngi commencé am ab diir gàtt na gàttul. Mhm. mais quand même c'est très passionnant parce que lu bëri loo xam ne man dama ko doon xalaat ci ay théories yenn yi jàpp naa ni xëy na théorie la woon. mais yu ci bëri aussi ñu ngi koy pratiquer ñu ngi koy réaliser. gis ah, ni avant ñu dem euh, plus loin Adja euh, sunu benn chroniqueur vexi na. boo ko mënee dalal ko waxtaan waaw kooku nag euh, wax na ko keroog <laughs> moom mooy mun na wax sax ñoo bokk ndey ak baay noon nga ko waxoon n'est-ce pas. <laughs> kookoy Mansour Sy Cissé nekk un journaliste mu nekk deuxième participation aussi cette année dans Ramadan Show mu nekk journaliste bu xarañ lool lool lool nga xam ne des fois moom wax ci yoo xamante ne doy na waar <laughs> kooku sama frère Mansour ñu ngi lay euh, nuyu di la dalal ci plateau bi. maa ngi lay fay bu baax a baax. di nuyu madame Diop Tabara. Mm-hmm. sama xarit. Mm-hmm. may nuyu aussi la ministre Alioune Ndoye. di la nuyu yow bu baax a baax. fii ma toog fi la may Maimouna Ndour fay doon toog. Mm-hmm. donc ay gàllankoor tax toogu fi ren ñu koy ñaanal yàlla yàlla fëgg boppam. saay saay yi nga xamante ne bii dañoo taxaw pour yàq yàlla. Euh, neenal seen pexe ba mu dellu si waat fi parce que aussi sénégalais yi mhm. wax dëgg ne yàlla dañ ko soxla quoi mhm. donc euh, may ñaanal aussi tamit la communauté en fait de cette TV les Sénégalais d'ici et de la diaspora ñaan yàlla Sénégal nekk ci jàmm daal mhm. mu door koor gi ci bisimilah rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilah rabbil alamin allah moom mi ngi lay jaajëfal bu baax a baax. moom daaw ñu daal di bàyyi nga continuer. tabara am na benn préoccupation peut-être boo am. ci passage am euh, euh, Benno Siggil Sénégal transition bi ak taxawu Sénégal mi ngi wax léegi que ne euh, moom musul wàcc ligne am ci li mu nekkoon la nekk xëy na ku génn yow yaa dem mais moom il est resté le même depuis bi mu engagé wu en politique. oui je pense que déjà loolu nekkal na leeral bu am solo parce que ñu bari gisewuñu ko woon noonu en fait mm-hmm. on avait l'impression qu'il y une certaine rupture mais ce n'était pas le cas ñu ngi wax waxu opposition il a démarré dans l'opposition mu nekkoon lu métti à l'époque Euh, certains jugent que tey jii euh, la bipolarité qu'il y a dans la scène politique est plus compliquée qu'avant sa sa gis-gis maître Alioune Ndoye euh, monsieur le maire Alioune Ndoye euh, avant le parti socialiste vous avez démarré votre carrière en 2004 dans un parti d'opposition loolu nan nga ko dundee ni comme ni ma ko waxee rek ni ma ko dundee woon d'abord c'était un choix donc assumé. mm donc peut-être euh, bi ñu naan sax c'est relatif. Mhm. parce que yàlla def na ni quand même. à la différence de beaucoup ñun dundewuñu woon politique. ba ba mooy dugg ci gouvernement de l' état nga xam ne y' a incompatibilité man mosuma dundee politique donc j' étais peut être privilégié. Mm. disons voilà parce que euh, ñeneen ñi gënuñu leen peut être c' est un privilège. ça donne une forme d' indépendance ça donne une forme de en tout cas d' indépendance qui fait que justement boo téye ci dara gëm-gëm mooy tax. te euh, dana jafe parfois ñu changé loolu ñu bëri nag loolu la ñu comprendre. parce que mm. wax nga sànq ñi ay rigueur xam naa dañ ciy teg yeneen yi sax dafa xaw a <laughs> mais parce que li ñu def par conviction la donc boo boo nekkee ci benn biir par conviction souvent xëy na métit bi nit ñi di seen yow doo ko doo ko doo ko yëg mhm. nous pensions qu'il y avait des choses à améliorer et à changer et on s'est battu pour cela maintenant après loolu da aussi évaluation day am par euh, euh, dans dans le temps évaluation day am euh, xam ni man jàppoon naa ni parce que comme ni mu leen ko waxee 96 laa ñibbis fii nekk cadre 96 ak 2004 quand même am na diir. à un moment donné je me suis interrogé sur moi-même je me suis un peu. moment de réflexion la woon pour xam. non pas moment de réflexion daf ma dab parce que une petite anecdote le jour où mon euh, yàlla na ko yàlla yërëm m'a vu à la télé ci ay wàllu politique le lendemain daf ma woo mu ne ma hmm. mais quest qu'est-ce qui se passe d'abord c'est pas nature du sa jikko du sa qu'est-ce qui se Euh, jaaxaloon na ñu bëri parce que du ma nitu peut-être euh, voilà je suis pas une sorte de tribun de machin donc les gens s'étonnaient de voir quelqu'un comme moi boo xam ne euh, et c'était ça l'égoïsme que j'avais pointé du doigt maanaam voilà sa kër sa bureau sa kër sa bureau sa njaboot alors que ce pays nous a tout donné ce pays nous a tout donné moi moi vraiment xam nga ko dalee école euh, école terme sud bu Wakaam et cetera Euh, li nga def yëpp euh, public la. je rappelle que de troupe. oui public. donc ku jaar Prytanée machin donc tu dois quand beaucoup à ce pays à un moment donné on se dit mais attendez euh, avec ce conseil qu'on ne peut pas mettre sur la table au niveau public. Mm. parce que c'est c'est un c'est des responsabilités professionnelles. gis fi réew mi jëm xam ne on peut faire autrement. c'est ce qui a amené notre engagement et je, ne le regrette pas. loolu laa bëggoon loolu laa loolu laa la bëggoon laaj est-ce que l'engagement serait Euh, aujourd'hui même peut-être qu'ils seraient plus mieux outillés <laughs> parce qu'à l'époque je découvrais au monde aussi comme je dis encore moi je suis né d'une famille politique mm. euh, sama sama baay c'était les jeunesses de Lamine Gueye autres donc ñooñu kër googu kër politique bi ma duggee mooy sànq dama yeggale ma ko sama différence beaucoup de cadres bi ma ñëwee da nga ne vision non je suis allé à la base je me suis créé ma base c'est peut-être ma différence avec euh, li ñuy wax li registre comité bi sama maam yoroon boobu laa moom <laughs> laa jël maanaam comité bi. Ah, yoroon Dakar Plateau ngay wax mais Dakar Plateau bi nga koy am euh, c'était parce que da ànd booloo Benno Siggil Sénégal y avait ku ne da nga indi cotiser nga nga nga jariñoo ko après nag si nga yaatal xëy na parce que yor nga le pouvoir dina dina gën a yomb. loolu aussi euh, beneen bi aussi mooy sama caractère bi ma ci duggee ci lii ma ma mosuma yëkkati sama loxo ne soxla naa dara. Mhm. parce que mais man euh, à l'époque ñi doon jiite la coordination euh, de du plateau parce que xam naa ñu ngi may déglu euh, notamment feu Amar Soxna Taras Diop moo doon moo fa desoon doon ko jiite moo jël certains de ces jeunes ñëw sama bureau à la e. ne ma damaa bëgg woote CA bi pour mhm. proposer leen fi ñu jëm nga nekk un suñu candidat pour la mairie deux ñu organiser pour nga diriger la coordination. Vous n'avez rien demandé. vision bi ngay wax. c'est des cadres de vision qui sont venus dans mon bureau pour me proposer ça en disant nous avons envie aujourd'hui de donner de l'impulsion à vision de le confier à quelqu'un qui est cadre justement qui a bu am un réseau di liggéey ak les cadres de ce pays là mm-hmm. soit bancaire euh, dans l'État et pour jox vision benn donc ñoom ñoo ñëw proposer j'étais pas demandeur de ça parce que au départ j'hésitais parce que en me disant est-ce que j'aurai le temps mm-hmm. parce que dama daan tëj un bureau xam nga le privé c'est strict daw dem réunion maison du parti buy jeex dawaat naa dem nit ñi foog ne peut-être rëy la wala leneen te xamuñu boobu maa ngi dund loo xam ne mhm. bëgguma tooñ aussi de l'autre côté parce que dama yor liggéeyu jàmbur mhm. donc jaar-jaar yooyu aujourd'hui quand je l'analyse je dis bon l'expérience aussi parce que j'ai acquis cette expérience dans le monde politique euh, jeune le mais pas tout devant mais yoral aura voilà je dis le temps au temps pour tout ça uh -huh. Adja wala Mansour. Mansour peut-être moi je pense que ni c'est l'honorable député Abdoulaye Wilane moo la moo la indi PS d'après mes informations. c'est une grosse erreur. c'est une erreur ok. d'accord c'est une très grosse erreur je l'ai connu moi dans le PS. ah d'accord vous l'avez connu dans le PS. ok c'est bien. jàpp ñu sa loxo indi la biir PS yaa jékki-jékki décidé jàpp ne fii laa war a dem nga nga engagé wu. quand j'ai voulu m'investir je suis allé voir mon père. que am encore une fois dama ne ñooñ ñoo sos parti socialiste. Mhm. man sama bàyyi Ngiran Ndoye la. yooyu ñoo sos parti socialiste. je suis allé le voir parce que avant saa waxee PS <laughs> moi le PS c'était pas ma tasse de thé. <laughs> je le dis souvent à mes mes camarades quand ils pouvoir ma dem wax ko loolu mu ne ma toi avec tout ce que xam nga laajte ma ne ko c'est une décision que boo xam ne naa ko naa ko jëmmal bëgg moon nga yëg ko feneen je suis venu t'informer c'est ce que je vais euh, imaginez bien le parti socialiste bi ñuy wax les quarante et autres quarante ans tout ce qu'on veut c'est dans la semaine qui a suivi qu'il m'a dit je veux que tu rencontres le secrétaire général du parti moi c'était la première fois physiquement ma gis un tanordien ñu joxante loxo de mhm. ma vie sinon peut-être télé wala et je ne m'intéresse pas vraiment à la à ce qui s'y passait mhm. donc à l'époque Tanor était euh, le président du groupe parlementaire PS à l'Assemblée Tanor Dieng. oui loolu ban année la 2004. 2004 euh, oui mooy législative yi ñëw juste après. l'alternance 2004 ok. donc c'est c'est c'est à son bureau qu'on on a discuté et xam nga bon il m'avait dit est-ce que vous avez un CV ma jox ko sama CV ma xool CV bi ma ne ah toi on est en de créer quelque chose bon parce que Vision était en création. ok bon, quand je suis venu Vision était en. création ça n'existait pas avant votre arrivée. était en création ils avaient mis un groupe pour en fait organiser il a parmi ceux qui coachaient un peu il y avait les Moussa Taye et toute cette boo xam ne dañ leen ko dénkoon pour ñu organiser affaire bi texte yeeg et cetera et cetera mhm. euh, donc c'est là où Tanor ma dalal ma en fait ne ma mais lan moo tax nga nga choisir ñu ma ne ko ah jàppal benn affaire mooy si vous étiez encore au pouvoir je ne pense pas qu'un seul jour je serais venu avec vous mhm. donc faites le voilà faites la balance pour xam ne tey quatre ans après ma gis ni ngeen taxawee jàpp naa ni mën naa ànd ak yéen. d'accord hmm. Hmm. mais est-ce que par exemple le compagnonnage du PS va continuer. le compagnonnage non le compagnonnage du PS c'est-à-dire le compagnonnage du PS dans Benno avec Benno avec Benno autant pour moi parce que vous parlez beaucoup de Tanor Dieng alors que Tanor pour lui euh, en 2024 il faudrait que par exemple euh, le, le le le PS ait un candidat parce que pour lui euh, en 2019 ñoom suñu génnoon c'est-à-dire bu génnoon di wut nguur gi ñoom moom jàppoon na ne du ñu woon am dara donc il fallait accompagner le chef de l'État jusqu'après 2024 ou bien en 2024 ngeen am candidat donc vous êtes journaliste est-ce que vous avez parce que j'entends souvent ce, cela est que vous avez un élément où Sanor dit cela clairement. non en fait c'est app bi non régulièrement je l'entends moo may laaj parce que mhm. bëgguma aussi wax loo xam na ma. man li tax ma laaj la ko mooy il en avait parlé à un dignitaire qui m'a appelé aujourd'hui hmm. on a échangé sur la situation du Sénégal donc il m'a fait cette confession. bon y a des dignitaires religieux nag que je voyais toujours ces Tanor aujourd'hui que je vois l'autre côté donc. Ah, je fais <laughs> rarement dem na kër Tanor fekkuma leen si si et aujourd'hui je vois je vois autre chose donc aussi dignité religieuse bon je veux pas faire certaines catégorisations mais li ma bëgg wax mooy Tanor toujours analyse parce que politique contexte la les coalitions ce ne sont pas nos partis nous sommes des partis indépendants mm -hmm. nous sommes euh, notre objet nous mhm. mais c'est de gagner le pouvoir et de l'exercer j'ai dit tout à l'heure on a fait plus difficile c'est-à-dire que un parti aussi implanté que le PS ngay dem législative nga boycotté ko mhm. maanaam amoo benn représentation parlementaire on l'a fait quand parce que analyse la contexte la et cetera ñu jàpp ni lii mooy la la solution bi ñu def Benno Siggil Sénégal parce que dañu jàppoon ni moom moo baaxoon moom moo ñu mënoon permettre ñu dem mais Benno Siggil Sénégal en un moment donné dañu ne dañu dem togg les assises nationales bi ñu ko toggee it à un moment donné dañu ne non lii bu ko du dem parce qu'il fallait assurer la jonction avec la population mhm. nos responsables là euh, ñenn ñi yàlla na leen yàlla yërëm te nekkatuñ fi ñoo dem seeti yenn kilifa yi ci ci ci réew bon donc je vais pas revenir sur cette mhm. donc c'est des contextes euh, Benno Bokk Yaakaar aussi contexte la souvent damay dégg gars yi naan ñu euh, mel nañ dañu dañuy wàlliyaan je leur dis Benno Bokk Yaakaar est notre création ñun nous ne sommes pas des invités dans Benno Bokk Yaakaar c'était le Benno Siggil Sénégal c'était le Dekkal Ngor de euh, Macky Sall et cetera ñoo. le Benno même vient de Benno Siggil Sénégal. oui ñoo waxtaan jàpp ni ni Abdoulaye Wade defoon ba jël fi PS loolu rek moo ko fi mën a jël maanaam coalition. aujourd'hui vous voyez les gens là ceux qui se disent euh, anti-système ils sont entourés à 99 pour cent du système. Mhm. parce que voilà il y une logique politique qui les rattrape. au-delà de leurs convictions je ne sais même pas si ce sont des convictions. moo taxoon ñu toog waxtaan. Benno premier mandat du président Macky Sall ñun on se plaignait beaucoup. Mm. on se plaignait beaucoup et pourtant vous servi. Ben, attendez gouvernement nous, nous on est nous parti socialiste. nous sommes le parti socialiste. <laughs> Mm-hmm. euh, nous nous plaignons beaucoup dans nos sphères. et moi personnellement Tanor me disait Alioune Ndoye nous avons accompagné euh, en tout cas ce président nous avons accepté d'être en coalition avec lui sans condition. Mm-hmm. c'est pas maintenant que j'ai moi posé des conditions ou autre chose. donc. voyez euh, c'est le contexte 2024 ñëw na c'est une analyse vous analysez vos forces vous analysez votre évolution vous analysez ce que vous pouvez apporter et la réalité de ce pays est-ce qu'il y aujourd'hui réali en tout cas nécessité pour le Sénégal parce que aussi souvent ñun dañuy caricaturer mm-hmm. suñu mbokk yi journalistes mm-hmm. dañuy caricaturer comme si bu dee ñun par exemple suñu bakkan wala leen ñu jiital par rapport au pays daf ñuy metti bu ñu gisee parti bu m ak li mu doonoon tey mu voilà mais sëñ bi moi je vous <laughs> renvoie hier il y a un moment donné le PS quand même vous le décriviez comme une catastrophe nous moi li gën a metti sama kii quand je suis rentré il fallait porter aussi le fardeau des 40 ans. Ouais. Mm on nous mettait ça sur la table. même si bokkoo ci woon bon mën naa ne bokk naa ci parce que je suis sénégalais. Ouais. et comme je dis moi le c'est le l'État. sénégalais qui, qui, qui m'a donné ce que j'ai. Mm -hmm. Donc, euh, euh, mais quand même, à un moment donné, les gens disaient non, non, pas le PS. Maintenant, vous PS les positions, nous disons non, c'est un parti historique. Mais Alhamdulillah, on accepte aujourd'hui que c'est un parti qui mhm. compte, c'est un parti qui est là, qui malgré aujourd'hui 2000 quand même 24 ans oui. qu'il lâché ce pouvoir, ce mhm. parti encore là en train de compter. y a je ne pense pas qu'il parti. oui allez-y allez que man d'après mon analyse <laughs> mhm. je pense que quand le PS a beaucoup de sa superbe. le PS c'est l'un des partis les mieux les mieux structurés et c'est l'un des partis les le mieux implanté au Sénégal. Le PS, c'est 138 coordinations, je pense, plus la diaspora, ça fait 139 coordinations. Autrement dit, est-ce que le compagnonnage avec Benno vous mais mais je vous rappelle PS boobu ngay wax le plus mm. structuré et cetera mm. mm-hmm. PS encore comme je le rappelais tout à l'heure quand pour cent mm. de son de de de de son encadrement mm-hmm. son bureau politique il y avait très peu la plupart de a fallu Et avec méthode d'ailleurs, vraiment, il faut tirer le chapeau aux gens qui étaient là. Avec méthode, il a fallu rebâtir avec des jeunes assez engagés. Aujourd'hui, nos responsables jeunes, coach tech table, il est, il est plus pertinent que nous. Les Mambouna Massal et autres, quand vous les prenez. Avant, voilà. il, était de l'autre côté. Comment Abba <laughs> Mbaye là, mais maintenant, il est avec euh, Khalifa Sall, même si c'est le PS. Oui, parce que Abba, bon, moi, Abba, je connu très peu. Euh, mmh. Mais je dis aujourd'hui, quand je prends mes responsables, des, voilà, des, des jeunes comme Faha Touré mais je veux dire, vous, êtes fiers en les regardant et en écoutant. Et ce parti, c'est ça. Euh, Tanor disait, ce parti-là, je veux avoir, une Aminta Mbengue, je veux en avoir N. Je veux pas avoir une Aïssata Talsal, je veux en avoir que, je veux pas avoir un Alindo, je veux en avoir N. Mhm. C'est ça le parti. Cette formation, c'est voilà, cette complicité de génération. Moi, il faut et nous, on doit se battre on doit nous devons parce que tey boo demee dans les localités du Sénégal di nga gis mag boo xam ne mu ne la oh, man deretu PS moo fi nekk mm-hmm. c'est humiliable c'est là c'est constant comme ni nga ko Mansour waxee ah moi je vais rebondir euh, sur sa question mm-hmm. euh, comme euh, Tanor ni mu ko doon waxee loolu la bëgg je veux d'autres Aminata Mbengue Ndiaye et d'autres et d'autres et d'autres et depuis 2012 ba léegi nee ni on voit que n'existe pratiquement plus. Ah, est euh, parce que moi <laughs> en, en 2000 oui, euh, vous êtes euh, vous existez à travers Benno parce que Mais nous euh, sommes Benno madame. Oui, vous êtes Benno, je ouais. sais que vous faites bi nga xamante ne bu toll bu mel ni euh, PS PDS. Moi en 2019 quand on faisait des émissions et tout ça, je me disais lu ci mel ni PS ak PDS amuñu euh, candidat on va en 2024 donc je pense que tey euh, seen euh, ànd bi ngeen ànd ak Benno ngeen booloo woon boobu ba léegi est-ce que c'était pas le moment de PS mu ñëwaat ci kanam nekkaat PS bu mu nekkoon avant jéem a formé waat benn partie boo xamante ne nekk ci kanam madame lu jot yomb mm-hmm. lu jot yomb et comme je dis fii parce que si on est dans cette logique des élections ici, ça veut dire qu'il y a plus de 300 candidats. Parce qu'il y a plus de 300 formations politiques. C'est vrai que toutes les formations politiques, d'où PS. Euh, comme encore, PS, euh, ça d'ailleurs la, la, la, respectabilité du PS, du def les comme ça, de koy analyser, de, ci échange. gis nga euh, démb rek en urgence woon nañu Aminata Mbengue Ndiaye la présidente mhm. pour ñu waxtaane euh, voilà yenn yenn questions yi mhm. PS noonu lay fonctionner Euh, parfois di nga jël décision boo xam ne du la neex. Mhm. yow individuellement. Mhm. mais da nga bokk dans ci kuréel démocratique boo xam ne boo ñëwee ñu teg les arguments. Mhm. quand tu es minorité boo bëggee sa kuréel kon ne am doole da ngay dooleel majorité bi dégagé wu. c'est ça aussi bokk ci dara parce que boo bokkee ci dara nga ne tant que c'est pas ma personne duma ci ànd damay yàq loolu à la rigueur soit une personne enfin. une organisation individuelle genre euh, voilà société euh, unipersonnelle mais mënoo dugg ci kuréel bu ni mel ba pare doo topp la la je dirais la loi de la démocratie. Ah, juste avant donc, de passer aux questions d'actualité parce qu'on a déjà fait hmm. euh, la moitié du du du temps. bii c'est important juste une dernière question avant ñu dem ci actualité bi. Euh, euh, au décompte. je pense que la filière. euh, électoral socialiste était de 800 000 électeurs. Est-ce que ça a évolué Il y a de cela deux ans. Hein? Est-ce que vous confirmez ça a évolué ou pas Mais je ne pas d'abord le décompte là, il vient d'où Non, c'est une source hein, autorisée. 800, 800 000 Parce que moi, que ma PS, conviction profonde, ça, ça moi, ma conviction profonde, si <laughs> aujourd'hui le PS a un bon candidat de conquête du pouvoir, oui. forcément vous allez au deuxième tour. Oui. Ça, conviction. Mais, mais comme c'est une addition de force ah. boo xam ne jàpp nga ni loo ci soustraire rek yaa ngi yàq mbooloo moomu yaa ngi koy hmm. te euh, peut-être on a cette discipline là qui fait que parfois c'est handicapant je sais pas mais euh, le PS fi mu jëm. bu ngeen ko yàkkamtee mais xaar leen tuuti ah, rek léegi ñu ñëw petite question man bàyyi la ma ko léegi euh, ci registre bi Cissé ñaari Cissé yi demee hmm. lay lay lay ñëw ak yow le parti socialiste yaa ngi koy wax sànq Aminata Mbengue euh, Ousmane Tanor Dieng bëgg-bëgg moo nekkoon ngeen am ay Aminata Mbengue yu bëri am ay euh, Serigne Mbaye Thiam yu bëri am ay Alioune yu bëri mhm. mais tey jii nii avec ce qu'on voit euh, les détracteurs du PS yi bokk si ci yéen ce qu'ils disent mooy y une petite minorité yoo xam ne ñoo accaparé les les les fonctions wala le euh, pouvoirs de décision ñu mel ne yow dañ leen di wax souvent Serigne Mbaye Thiam Aminata Mbengue Ndiaye mais le reste cette jeunesse bi nga xam ne euh, ñi ngi ñi ngi rey seen bopp ñoom il pense que jaadu na xëy na renouvellement yi bañ a yem rek ci cadre parti bi mais au niveau de de l'État euh, des fonctions auto autres bu ñuy joxe dara mhm. ñoom ñu mën ci gis seen bopp mais comme xam nga ba léegi ñun fi mu ne nii xëy na kuréel la mais yoruñu bopp kuréel bi président de la République moo ko yoroon dañu ànd ci euh, boo dul séddale nag souvent man nga dégg yi yi nga wax ni lu bëre mhm. euh, su man ba ñu may ciy cité souvent bon damay reetaan ah, yow yow yow ci mujj ñëw nga bokk <laughs> voilà <laughs> mais Serigne Mbaye moi je suis parcours bi may wax et je voilà je ne suis pas peu fier de, mhm. de, mon apport xam naa li may wax bu ah. baax mais ma soo ma non je veux dire moi euh, on ne peut pas négliger apport bi mu am ci parti social bi mu ci duggee ba léegi. ok ok mënuñ ko négliger mais euh, avant may dugg gouvernement ma soo ma dégg may wax ci loolu parce que c'est pas la une fin en soi c'était pas man li may def ni defuma ko parce que je vais dans un gouvernement. Mhm. wala mm -hmm. voilà, je veux diriger une une direction je quoi et euh, wax si sa bopp dafa xaw a jafe tuuti. Mhm. mais quand même euh, le PS n'a que deux postes ministériels. Mhm. ak une présidente d'institution. mais oui mais aujourd'hui quand même. l'AFP ne l'a plus. Euh, oui euh, ne l'a plus là mais l'a eu quand même. Mm -hmm. c'est ça a été en tout cas la particularité de Macky Sall d'avoir une large coalition aussi large et de l'avoir maintenue pendant douze ans parce que justement dafa séddale cër yi. mais <clears throat> sànq dama ne on n'a que deux postes ministériels mën nañ ko xeet mais moi je dis dooley parti yaa koy jox sa bopp c'est dans les élections boo xoolee le gouvernement du Sénégal le président là ramener le nombre de postes ça renvoie directement souvent au pourcentage que les gens ont réalisé sur le mais terrain. malheureusement ils sont pas nombreux à gagner chez eux comme yow par exemple. mais nag sëñ bi boo gagné looy laaj Serigne Mbaye Thiam il il gagne pas mais il est ministre depuis 2012. Mm. looloo metti waa PS. waaw <laughs> boo boo bëggee daal après nga invité sama mag parce que Serigne Mbaye <laughs> Serigne Mbaye sama mag la. Mm-hmm. xam nga pour euh, man du ko wax Euh, Serigne Mbaye wala kii moi je l' appelle toujours l' ancien parce que mooy sama ancien ci Prytanée militaire. Mhm. loolu nag ku ko xam xam na relation yoo nga xam ne. Mhm. man tey bu ma bu ma nekkoon président la république sax bu ñëwee sama ancien lay doon parce que ñun noonu la ñu mooñaale. Mhm. Euh, muy benn ñaareel bi aussi. mais un état euh, c' un ensemble de choses il a dans le gouvernement des gens qui n'ont aucune base mais seen expertise ak yooyu moo leen fitee parce que yow. ça va oui yow xam ne politique pure l'exécutif quand même. pourtant Macky Sall il encourage ceux qui gagnent ci seen i ay base comment il a Macky Sall day encourage ñu gagné seen base souvent même nomination bi loolu moo koy déterminer. mais xam nga Tanor parler de de de de cadre euh, techniquement compétent et politiquement engagé. ah ku boole ñaar ñooñu mais c'est normal ñu la fay teg mais ku ci am benn. mu am njëriñ lool lool aussi c'est normal ñu teg la fa. Ah, oui mon une dernière question pour un petit peu euh, clore ce chapitre PS. Oui, euh, j'ai l'impression que le Benno Bokk c'est un peu comme un navire que le PS a pris vous êtes allé à bord mais ne serait-il pas temps peut-être de quitter ce navire avant qu'il ne soit trop tard. mais quand ce sera une réalité politique et par rapport à notre projet de société. Mhm. par rapport à ce que La preuve, c'est que nous, on ne peut jamais suivre un candidat que notre parti n'a pas investi dans un congrès. maanaam ànd bi mu ngi leen di apporter euh, du leen di jariñ ba tey. non xam nga tey PS li nga koy laaj bu génnoon ci coalition. Mhm. par force day dugg ci beneen coalition. tey tey. Mm. parce que seul mënul dem. ban parti moo ko mën fi ñu toll nii c'est des réalités politiques. les mhm. coalitions sont. ku fi boo gé la d'ailleurs am na ñoo xam ne tey ànduñu ak ñun loolu laa leen di wax dama leen ne waaye yéen da ngeen bëgg ñu ñun ñoo ko tabax ñun. du ñu ay invité fu dem làng peut-être ak ñi nga xam ne ñoom lañ jàkkaarloo woon hmm. je ne voyais pas logique coalition bi ñoo nous sommes pas na ñu xeex ci biir tabax ko mooñ ko ni ñu ko bëggee d'accord n'est-ce pas mais tey bu pees génnoon xam nga fii gisoo fi benn langue boo xam ne dañu la ku la ne dana la coalition nangam même bu def turam lay wax. Mhm. <laughs> waaye bu ci dóoree ñaar ñetti nit turam dana ne. <laughs> coalition mais agréablement le PS va vous mais monsieur ministre. Ah, d'accord ministre. yéen daal yéen a ngeen ñu jàppale. très honnêtement si le PS <coughs> arrive à se réinventer avec un bon candidat. Mm. il peut aller seul xam nga lu tax parce que le PS une bannière. le PS c'est un label. le nom rek vend. man loolu laa jàpp quoi. très honnêtement. le PS kese. parce que gis nga benno benno ñetti force fa nekk wala ñaari force c'est APR c'est P c'est PS. AFP c'est à relativiser xam nga lu sax parce que AFP dooleem c'était dans les terroirs te là-bas les forces se donc mën naa ni benno il y a plus de trois cent et quelques partis et mouvement mais boo ci génnee APR génne ci PS. non ñu ci des moom franchement. non mais mais c'est normal que ba langa boo gis. très honnêtement mu am ay locomotives. voilà mais xam nga tey tey bu ñu defee dans le pas le fétichisme mais euh, dam lay jox un exemple. Hmm. différence des partis de gauche parce que man c'est une réflexion pas aboutie encore à mon niveau. Hmm. Euh, nous avons par exemple traîné les 40 ans du PS. Hmm. xëy na moo guddal suñu séjour dans l'opposition lu dëgg parce que c'est normal. ki nga xam ne dafa bañoon benn affaire mm. mais il faut d'autres générations pour xëy na mu wala en tout cas comme vous dites mm. vraiment une lumière qui sort mm. euh, mais boo xoolee en français que vous analysez souvent mais yenn les partis notamment de droite élection bu ñuy perte di changer tour tout de suite. parce mm-hmm. qu'ils veulent présenter autre chose. Mm-hmm. la réinvention. mais mais ah. euh, c'est la réinvention c'est la réinvention. la réinvention. Euh, xam nga le PS. est tellement fort en de nom. l'histoire mhm. de l'ex mais en fait c'est même pas seulement le PS parce que chaque fois man dama koy jot ci plateau yi comment ça se fait qu'aujourd'hui euh, yenn parti que ce soit des partis vraiment euh, euh catégorisés ou bien euh, yoo xamante ne benn image lay am euh, parti bi su xasee batas pour réinventer waat ko pour mu jógaat carrément c'est tout à fait compliqué mhm. qu'est-ce qui pose ce problème parce qu'on a vu même ancien parti fi nekk même que ça PS PDS AFP tout le qu'est-ce qui cause cela que tey jii nii Sénégal parti mënu fi euh, juddu nekk fi dans une continuité boo xam xamante comme on le voit en Europe ou dans d'autres pays euh, pendant longtemps parti bi continuer di euh, exister moom. mooy li ma réponse et on passe à l'actualité. pour pour man c'est une mmh. évolution rek. am na temps les partis forts étaient là que ça soit ici Europe di dominer. Mmh. mais dañu dem ba toll foo xam ne justement il faut des grands ensembles. boo jëlee États-Unis grands ensembles ñoo jàkkaarloo. républicain et démocrate. du dëgg mm. il faut des grands ensembles ñun euh, euh, notre travail ici c' les coalitions pour faire ces grands ensembles mais souvent nag coalition yi malheureusement ngeen baal ma ci genre suppu kànja lay doon. parce que du bokk ah <laughs> du bokk. <laughs> donc là aussi c' est d' équations qui sont là parce que euh, dans la même coalition il peut y avoir des confrontations de projets ou de vision et ça ça pose problème moo tax il faut qu'il y ait une bonne base boo xam ne elle est commune moo mm. tax souvent quand parce que justement foofu foofu foofu laa nekk. Euh, yenn yenn différence yi c' est pas am na rek laal ma kii Mamadou rek mu ne day bàyyi dem. Mhm. la la complexifier encore affaire en créant une autre entité. Ouais. donc pour man dañu toll ci état mais gëm naa ni danañ demi parce que gis nga tey bu ñu dugalee ay parrainage ay machin parce que gis nañ jafe-jafe yi avec la multitude de candidatures danañ demi bu peut-être delluwaat encore vers ces grands partis mm -hmm. ces mhm. grands ensembles qui vont davantage polariser transition pour dem ci mhm. actualité bi. Euh, yaa ngi wax les grands ensembles les coalitions suppu kànje Benno Bokk Yaakaar en 2022 ngeen commencé def suppu kànje dalal ñëpp ñëw ci ngeen commencé am ay problèmes. <laughs> coalition commencé essoufflé wu. Euh, ngeen mais difficilement. les élections yi amoon muy locale muy législative. Mhm. tey jii nii en ñu war a songu la vous avez un candidat muy porté euh, drapeau Benno Bokk Yaakaar. mais malheureusement ci li ñuy gis ci c'est quoi le problème Benno ah. Bokk Yaakaar qui ne vend plus wala dafa ex maturité comme ni ñu ko waxee essoufflé déclin qu'est-ce qu'il explique vous avez, vu euh, mon candidat à hier Si. mais loolu. Ah. Oui. on ne peut pas dire qu'il ne draine pas des foules. loolu nax na Abdoulaye Wade en 2012 attendez non vous dites qu'on ne draine pas des foules je veux effacer ce que je veux dire mooy coow li bëri ci yéen. non dama ne malheureusement négativement. exemple boobu dama ko jël pour effacer li nga on ne draine pas des foules. Mm. d'accord naa ak yow il faut quand même euh, une unité qui qui qui qui qui n'est pas ce qu'elle doit être mmh. une implication des responsables voilà, euh, des voilà qui qui ne sont et, et d'ailleurs la politique mooy li ngeen di wax il faudrait que progressivement parce que les gens euh, s'identifient trop à un homme mmh. ça pose problème au plus s'identifier à projet wax transition Wade Amadou ça ne passe pas Wade Macky pas Wade Macky Amadou. parce que Benno Bokk Yaakaar on identifié à à Macky Sall ba tey sax moom la ñuy wax. tey da ngeen am candidat côté boobu je parle des responsables aujourd'hui qui ne s'impliquent pas xam nga tey bu Alioune Ndoye impliqué une base taxaw. y a un problème. y a un problème maintenant comme je dis euh, euh, Benno c'est une machine. Euh, qui quand elle se met en marche je vous assure que c'est autre chose. mais bi bi yéex na de. non depuis ngeen choisir Amadou Ba tey euh, fii. non loolu peut-être euh, gisin la. mais ban lecture nga ciy def a beaucoup de fakes ah. oui allez-y beaucoup beaucoup ah. Amadou day sax nga gis gars yi dóor ci réseau yëpp naan c'est annulé machin fekk dara nekk. te seen biir lay jógee. ah loolu man ma xaw ma ko parce que xaw ma <laughs> man xaw ma koy diffuser. mais par contre Chérif vous êtes d'accord qu'il y a plein de problèmes au, ouais. au niveau de Benno même parce que voit euh, des hommes yoo xamante ne très proches du président qui fustigent carrément sur euh, le candidat Amadou Ba. oui bon mais mais ça euh, peut-être c'est un mal qu'on a traîné ça fait longtemps ça mm à toutes nos élections mhm. loolu feeñul ci Amadou Ba de élections yi fi jaar yëpp benn vous avez eu ça muy local muy et cetera y a eu les listes parallèles tout ça. mais tant que c'était Macky Sall non je veux dire mais dékku na ko opposé na ko euh, une organisation et cetera donc du lu bees ci Amadou Ba donc bu ñu ko ko askanale. mais aujourd'hui à 12 jours moins même de 12 jours de l'élection présidentielle. on va gagner au premier tour que élection ah tour et je vais vous dire. <laughs> lu tax ah. ah xam nga ah. ñun nag nous sommes <laughs> jël na décret convoqué ñu le 24 mars. le décret ay di attaqué. non mais décret bi moo fi nekk ba léegi. tant que décret baa ngi fi man pour man kuy nelaw naan élection du am yaa ngi ndax sa bopp. baax na tant que mu ngi fi. Mm-hmm. Euh, bu ñu naan candidature président la république moo ñu joxoñ benn candidat parce que ñun aussi ñoo ko doylu woon ne ko yaa liggéey ñi ñëpp yaa leen xam tous ces candidats la peut-être xam nga ci ñoom loo xam ne ñun xamuñu donc defal ñu ay propositions mu yaatal ko ci responsable yi. Mm-hmm. la tous ces candidats par exemple ont été reçus par le président Moustapha Niass. Mm-hmm. ci ci voilà ci donc mu yaatal ko jël ay éléments partout amul responsable ci benn boo xam ne waxul ak yow. ni ko tu euh, wolof di waxee foon sa gémmiñ xam et mu proposé ñu Amadou Ba man parti socialiste laa bokk. Hmm. bokkuma beneen parti ñu dañu am doxali loolu bi mu amee il fallait que suñuy instance validé ko. Hmm. et on l'a fait par un congrès d'investiture. fi ne nii foofu lañ toll ba jëmmi jamono. mais pourquoi il ne fait pas l'unanimité concrètement Amadou Ba ne fait pas l'unanimité au sein ah, du parti loolu c'est un ah, fait. il fait pas l'unanimité monsieur le maire monsieur le ministre loolu loolu loolu. mais mais s'il y avait s'il y avait quelqu'un qui faisait l'unanimité il y aurait pas d'élection. xam nga daa am loo wax sànq nee nga. sànq am lu mu wax sànq lu am solo nee nga mën nga bañ a d'accord. mais bu bu instance yi décidé da nga ciy plié wu. ma jox la exemple mais tey jii nii c'est pas le cas avec avec vous. ma jox la exemple euh, États-Unis du ay primaires la ñuy def. ci mhm. même kuréel gi. oui ça veut dire que mais après ils soutiennent le candidat choisi. sorti vainqueur mais ndaw si euh, elle a elle a pas encore soutenu donc loolu mais <laughs> le, le candidat va continuer son. est-ce que vous n'êtes pas en train de fermer les yeux ci lu apparent loo xam ne mën na leen coûter cher ëllëg. à dix jours de oui parce que sànq Amadou Ba il a pas suspendu euh, sa tournée ñëw Dakar en catastrophe loolu mënu leen ko nier. dama lay jox benn exemple <laughs> j'ai entendu beaucoup de gens dire <clears throat> que tous les ministres tous les responsables ont boycotté. Mm. l'investiture de enfin pas l'investiture. c'était la réunion la réunion campagne bi wala. Euh, moi j'y on moi, ne parle que de deux ministres présents. Ouais, moi j'y étais pas. directoire de campagne élargie. Voilà. voilà moi j'y étais pas pour une simple raison je ne suis pas dans le directoire. Ah donc quand on convoque le directoire non c'est pas que ça ne me concernait pas mais bokk naa kuréel yu bëri mais kuréel ma bokkul du ma fa teew. loolu rek la mais les gens ont pensé que dama boycotté foofu ñun ñëpp foofu la ñu tëral xool leen directoire bi. est-ce que kan moo fa nekk kan ci directoire bi. ah mais directoire bi nag xam nga candidat bi moo moo valide son directoire. est ce que c' est euh, pas ça le directoire kooku kam xam nga man pare Alioune tey soxla nañ ma feneen fu dul ci ay groupe de réunion ak i machin. Mhm. man fi ñu ma soxla mooy li may de fan yëpp. mooy lan këroo kër ma dugg fa. Mhm. di wax ak samay nit. Mhm. man foofu lañ ma soxla. Vous êtes investi à 100% ah, Facebook et voyez, voyez ce que je suis de faire quotidiennement. man foofu lañ ma foofu njëriñ boobu laa mën a amal nañ ñi man njëriñ bi mu mën a amal li ci ëpp fii ci Ndakaaru man naa ko am feneen nag. parce que mhm. macha allah <laughs> voilà de gànjool fa la ci suuf ba ci ay Casamance ay Sédhiou kii Ziguinchor bëri yor naa fay mbokk. yàlla yaa ngi wax sànq vous allez gagner au premier tour mais toute cette polémique est-ce qu'elle ne euh, dessert pas votre candidate y' a y' a des choses que je dirais pas là parce que je veux pas quand même. mais bëgg naa am sa avis en fait. ci non xam nga du ma ko wax bëgguma gars ñun. parce que problème am na en fait malaise am na. là il se passe quelque chose ouais il se passe quelque chose. non malaise bu profond non xam ngeen loolu moo lay arrangé. non mais dafa am malaise palpable. te ko sànq on est à 12 jours de la présidentielle ah. mais on est à 12 jours mon candidat en campagne. mais il a arrêté tout à l'heure dama ne demain j'ai conseil des ministres. d'accord lu dëgg c'est vrai que le conseil. il a de ses fonctions premier ministre. ñi ko jege ñu teg leen ci touche bi. renforcer ñi nga xam ne ñoo ko doon euh, critiquer. renforcer wuñu leen. si Mame Mbaye Niang Thérèse Faye. on même pas un mois <laughs> voilà du de de de des des élections. un candidat am na ñoo xam ne ñun jàpp am na ñenn ñu jàppoo ni yàgg depuis lañ ko waroon décharger mu dem toppatoo mais une présidentielle c'est un c'est le candidat face à son peuple. Mm-hmm. et le gouvernement Amadou Ba là il dormait pas ah boo ko leen ko il dormait pas. Et vous pensez qu'il est plus tranquille maintenant non mais il peut se consacrer à sa campagne maintenant il peut se permettre de dire tey maa ngi caisse maa ngi fële maa ngi nangam et cetera avoir son programme de campagne. il peut le faire il était rappelé tout à l'heure par le président de la République en pleine campagne devoir stopper net la campagne. vous au courant de choses qui... non vous l'apprend. exemple. son meeting de Mbacké moi j'ai lu partout que c'était annulé alors que y a jamais eu une once d'annulation mais bii moo wax ñu dégg bii moo wax ñu dégg ah, bii moom moo wax ñu dégg bon mais le président de la République patron de la coalition Benno Bokk Yaakaar man de bu ma woon fu ma nekk ma bàyyi ñëw. parce que bu ma waxul jox ma man ay <laughs> fee la soxla naa ko fi mu ne nii. le candidat là il a besoin de aujourd'hui mm-hmm. fu mais président bu ko woowee il a besoin de le voir il dit ko. bu ko waxul jox ko. Mm-hmm. <laughs> mais mais mais je dis encore une fois <laughs> moi je veux pas apprécier ces choses parce que euh, je veux pas aussi m'embrouiller la tête moi suis politique euh, je le fais souvent d'ailleurs de façon scientifique moom mooy moom mooy peut-être éloigné de certaines personnes parce que mhm. pour moi jàpp naa ni ça aussi c'est une science ah c'est mhm. pas lu ñuy def comme ça Bien sûr. Euh, donc je suis dans une logique qui est là pour l'instant man sama parti euh, ci ndigal ci waxtaan ci respect de no dañu euh, investir benn candidat parce que moom la bennoo teg comme candidat c'est le maire c'est pas le maire c'est pas mon débat aujourd'hui li ñuy mën a may ñu gagner mooy ñun ñëpp ñu def nii mm-hmm. ñu pour ñu ñu gagner donc vous n'êtes pas de ceux qui le critiquent mais moi critique personne vous m'avez entendu critiquer les autres euh, qui non ma bëgg a xam sa position ci mbir bi non pourquoi mais comme je man man li may def sama c'est par choix par conviction mm-hmm. pourquoi voulez-vous keneen ma bañal ko loolu non ku xalaat ni yow fi mu ne nii sa heure moo jot nga def sa sa langue sa droit nga doxal. Ah. peut-être ñenn ñi waroon nañu ko def bien avant. man lii moo ko naroon def ci bennoo j'allais quand même me retirer bien avant bien avant pour quand même nit ñi xam ni voilà mais doo toog ñenn ñi je vois c'est c'est c'est en présentant leur candidature qu'ils ont quitté euh, les fonctions qu'ils occupaient dans Benno. Mm -hmm. mm. comme Mame Boye Diao par exemple. ah mais mais mais les les accusations yi jëm ci moom ci wàllum corruption depuis sànq am na ah. audio yu circulé authenticité bi xamuñu ci dara mais c'est assez grave quand même te lu gën tuuti loolu moo tax président arrêté woon processus bi euh, parce moom la ñuy accusé lu garaaw a bon audio yi man j'avoue que benn laa ci jot mais j'avais rien vu dedans benn mhm. c'était il y de cela quelques jours mm. les autres peut gisuguma ko soit d'audio et de vidéo man mii sax j'ai été victime de ces choses mm. ah, aujourd'hui vous savez très bien que fi nga toog nii mën nañ la teg léegi sur une plage hmm. à naa là-bas di la wax loolu loo xam ne mosoo ko wax donc il faut faire très attention surtout mm -hmm. parce que nous sommes tous menacés ay borom kër la ñu c'est vrai nous sommes tous menacés euh, loolu euh, c'est ma première observation deuxièmement mooy que ni euh, aujourd'hui ñun man de sama président mooy Macky Sall parce que ma je connaissais pas l'homme maa ko pratiqué ba dem tànn ko dëgg parce que jàpp naa ni li mu doon li muy def ci réew mi les sénégalais s'en rendront compte après loolu laa jàpp euh, te heureusement am na yu bëri yoo xam ne pour man stabiliser na ko ci wàllu loi et cetera bés bu ñu ko naree soppi fii moom les gens feront face aux sénégalais nuy protéger suñu ressources yeeg et cetera loolu au moins pour man xaw na ko stabiliser parce que légiféré na. Mhm. nous sommes l'un des si noonu le seul à avoir légiféré sur des ressources comme ça avant même qu'elles n'arrivent et important. donc euh, euh, am na kum ma joxoñ euh, ànd naa ci ba keroog ñu may joxoñ leneen te foog naa ni fii ak dimanche parce que les élections coow lu bëri lépp dimanche la dimanche bee di ñëw la. c'est ça mais justement lendemain oui. <laughs> man man dama bëgg relever ay faits yoo xam ni ñun ñëpp dañ ciy d'accord mm. Amadou Ba est le boo xamante ni jiitewul parti jiitewul mouvement.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 présentement c'est Amadou Ba qui décaisse te loolu bu continuer est-ce que du dañ ko bëgg a bëgg bëgg ko ruiner. waaw. ah mais Amadou Ba xanaa il est assez. ah bëgg jiitu sama réew xanaa il est assez construit assez d'une coalition quand par exemple loolu man par exemple li may def nii actuellement. par attendez je termine. cest à am na loo xamante ne ça ne vous euh, euh, concerne pas par exemple bi ñuy euh, bi ñuy génnee permanence su APR président avait demandé au ministre aux députés au DG de contribuer.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 ku ci mel ne le ministre bi ñu demeet récemment Samba Sy je pense. Samba Sy lan mooy position. Euh, rapport bi mu si mu si rop ban rapport. bi président jëloon comme décision def ko il a réitéré fële moo ñu wàccee ko. ah jam ñaajo waxaat na ko fa. moo ñu wàccee ko non non non jam ñaajo on parlait pas de rapport jam ñaajo on était en train de parler de la loi d'amnistie on était en train. oui mais il a pris la parole pour dire que. moom la li mu wax foofu. oui dafa ne son parti bu doon seen sago. en tout cas ñoom lu ñu décidé mooy benn euh, euh, baale waaw il faut ñu mën di baale di jéggale mais baax na aussi ñu xam lu ñu jéggale li ñu waay pour bañeti fi am benn ñaareel bi aussi bu doon seen sago mooy élection yi balaa le 2 avril non oh, maanaam la fin du mandat du président. mais dafa am loo xam ne ñun ñi bàyyiwuñ ci xel. mooy le vote des militaires. normalement c'est une semaine avant. le vol des civils. non loolu foog naa changé woon nañu. ça a changé. ça c' était du temps de Père Laye qui nous a bien eu là. d' accord si si. <laughs> ok mais mais mais oui, vas-y Tabara. merci mhm. beaucoup si je peux me permettre en fait man euh, là là actuellement la situation euh, de Benno Bokk Yakaar. ça Elle... me fait penser à um, une situation d'un parti qui est actuellement en lice le parti PASTEF. et j'ai même envie de paraphraser benn benn slogan on a l'impression que tey jii. Amadou mooy Amadou Amadou mooy Macky et qu'on est face à un projet. et non face à un candidat Benno Bokk Yaakaar soutient-il le projet ou bien Amadou Ba concrètement mais madame moi je vous renvoie au débat qu'on vient mm. bu doon benn bu dee euh, nu mu tuddati Macky mooy Amadou kon li ñu fi waxee sana na ça mm. donc le choix est clair mm-hmm. ça ne tient xam nga boobu léegi ñu ngi naan ñun ñun ñooy saboté wala et cetera la cette candidature est-ce que Macky Sall et cetera moo coupé son son non Euh, donc ça veut dire que Benno aujourd'hui ñun li ñu neex mooy quand même les gens enfin ont publié leurs différents programmes uh-huh. et quand on regarde ces programmes là et il faut revenir à ça moi je me dis il y a, il y a une forme de plébiscite non assumée de ce que Benno est en train de faire Mais vous pensez que son impopularité va lui permettre de gagner au premier tour, comme vous l'avez dit, son impopularité Vous croyez qu'il est impopulaire ah, Dans, l'histoire électorale du Sénégal et du présidentiel, qui, ne gagne pas Dakar ne <laughs> peut pas gagner forcément les élections présidentielles à Madouba. Mais le président Le président ouais. n'a jamais gagné Dakar. Et il, a gagné quand président de la République. Donc tout est possible. Pendant deux mandats. Euh, Dakar, c'est une voilà où tout le monde se rend compte c'est la plus mais difficile. mais quand même euh, le président Macky Sall euh, il mm. avait euh, sa sa région. il avait, il avait euh, exactement. Ouais. il avait vraiment du monde euh, derrière lui quand même. amoon na fiefam amoon na foo xamante ni soo ko tuddee euh, le président Macky Sall ñu ne la Fatick mais le président Amadou Ba aujourd'hui si tu parles on parle de parcelle mais parcelle. quand non, même parcelle non voilà. Parcelle, non, uh -huh. même pas ah, même pas parcelle. vous savez donc vous voyez un peu tout ça monsieur le ministre. aujourd'hui on a quatre arrondissements dans Dakar. on a des personnalités dans ces arrondissements il faut que chacune d'elles s'investisse pour justement gagner faire gagner et aider à gagner dans ces arrondissements là. muy benn Dakar c'est compliqué mais aussi la lisibilité est, est facile. parce que ñi ñu jàkkaar loolu justement kenn maîtriser wu fii dara ci biir Dakar coow lee bëri rek ils nous ont approché aux législatives euh, approché la parce que ñoom dañu gëmloo Sénégal ñooy joor majorité à l'Assemblée mais les faits vous ont montré que c'est pas le cas parce qu'ils étaient ensemble mais là est-ce que actuellement ils sont ensemble ils ne peuvent même pas se rencontrer dans la rue <laughs> ils ne peuvent pas là où leur caravane je, je les invite d'ailleurs à vraiment mm. inscrire ces quelques jours qui restent dans la paix voilà nous sommes des campagne jarul di xeex donc ñooñu tey tas gi ñu tas naan diw yi diw ak xaw ma lan <laughs> mais ñun on nous ouvre des boulevards des boulevards il faut que nos responsables en profitent il faut que nos militants en profitent parce que nous nous avons des choses à dire au Sénégal mhm. par contre koo xam ne ay litanie de promesse la lay defal te waxul la kañ la koy def nak naka la koy defee ak lan la koy defee kooku mënoo ko méngale ki nga xam ne kee lim la ne dana ko def kii tàmbali na koo def nga ciy teg sa bët mais kooku mën na nekk Séné président Sénégal ginnaaw élection yi nga xam ne ci lañ jëm muy kenn koo xam ne il n'était même pas au départ Euh, celui qui est choisi par son parti mais tey jii nii circonstances yi am yëpp tax na ba ñoom ñu teg ko ci kanam te il a de fortes chances de de gagner présidentielle. Ah, le Sénégal de de de de Macky Sall de Ablaye de Senghor de Abdou tey jii nii ñu war dem ci koo xam ne jàpp ngeen ne amul expérience ay mais inexperte mais la démocratie moo tëddee noonu kooku noonu tey jii xëy bu nekkee président ñu ba jàpp nañ ne vous êtes en partie responsable <laughs> dafa mérité wu jiit yi mu am. ça hmm. aussi il faut que Sénégalais bàyyi ci xel bu baax. Hmm. ki ki ñu jiite ëllëg. Hmm. ñun ñoo koy tab ñun Sénégalais. ça c'est la c'est ma première observation sur ce fait-là. ok deuxièmement mooy que ni euh, bon yow da nga def hypothèse que man dana gagné réew mi. mën na gagné man ñaanalu ma ko Sénégal. Ah, ndax lan. ah ñaanalu ma ko Sénégal parce que damay xool nit ñi seen seen seen carrière seen taxawaay euh, et cetera parce que réew. vraiment c'est pas une boutique du quartier à c'est extrêmement important il y de notre de nos avenirs ah de suñu avenir doom sët de notre stabilité Sénégal aujourd'hui bu ñu koy wax dañuy foog dañuy tiitalaate mais vous vous êtes des journalistes vous savez dans dans quoi est assis le Sénégal hmm. Sénégal mu ngi jàkkaarlook ñoo xam ne aujourd'hui ñoo ëpp doole suñu réew yi en termes d'organisation en termes de moyens financiers ñooñu nag ñaar la moom hmm. li ñu soxla dañ wañ lañ sa loxo bala ñu jéeme ko amee neneen maanaam dañuy tas sa réew yow doo tal leneen lu dul sa bakkan ñoom ñu jël li ñu soxla gaz bi nar a ñëw fii waroon tàmbale at bii passé di dugg suñu budget gars yi ñu ngi voilà xam nga rek ñu ngi kii di ko reporté di reporté loolu mu ngi à xaw ma dix-huit kilomètres xaw ma ci géej gi de la côte bu ëllëgee yàlla tere tereti ko ñun ñu nekk fii di xalaat tal leneen lu dul suñu bakkan xam nga ni foofu ba yi danañ fa nekk di ŋàcc li ñu yor di ko mm-hmm. yóbbu ñun ñuy reyante fii loolu nag soxlawuñ ko fii ci réew mi moo tax ñun li ñu boobu ba léegi ñu naan loo mënti am ci Sénégal lu la yàlla def mën a defal fii li ci ëpp mooy jàmm d'abord jàmm moo xam ni loolu lañu xam ñun ci la ñu mm-hmm. la ñuy mën a dunde loolu bu ko buñ ko amul leneen richesse bu fi ñëw on va profité en profiter aujourd'hui li ñu tuumaal yëpp ñun en tant que benn mais quand même les Sénégalais nañu ubbi seen élection yi passé lu tax ñu gars yi am voix ñu am dañ dem ci jàkk yi dem fu ne naan ñun ñoo fi nekkal borom ñaari hmm. tur yi ñun ñoo nekkal euh, France ñun ñoo nekkal mais tey ñan ñoo ñuy xeex ñu Vous voulez dire qu'il a une certaine manipulation mais de la une certaine une manipulation quand même dense mm -hmm. qui a eu à faire ces résultats mais le temps doit nous permettre aujourd'hui ñu analyser loolu bañ a continuer à être des victimes de manipulation aujourd'hui ñenn ñoo ñuy xeex quels sont ces organes internationaux matin di soir maa ngi gis léegi ñu commence def ay reportages sax ay Kër Massar ay machin et cetera dans des journaux internationaux mhm. donc loolu am na lu mu firnde mooy un d'abord président bi fi nekkoon il te là pour les intérêts exclusifs du Sénégal di ko défendre di ko xeex mhm. il est allé dans toutes les tribunes internationales di défendre loolu di défendre la position qui est celle qui pour l'Afrique et le Sénégal mais kooku gars yi à un moment donné dañu kii wax nañ wax wax mu tër il faut bu ñu xool lu ñu def. Mhm. loolu rek la mbas na leen nag bi muy gars yi foogoon dana persister nekk candidat mën leen man nekkuma candidat. mais malheureusement ces dernières décisions. Euh, dañ ko critiquer bu baax a baax am sax ñu ko dindi. maanaam je fais allusion au conseil constitutionnel. par rapport ak décret bi nga xam ne euh, abrogé woon na ko. Euh, pour convoquer code électoral bi ñu dem waa conseil constitutionnel daal di koy neenal. Mhm. benn la ñaar aussi mu woote dialogue pour que ñu am élection yi juin bi gars yi dellu ci ginnaaw. maanaam le président en fin de mandat. Mhm. ay décision am ñoo baaxul wala c'est quelqu'un qui est de perdre. mais c'est c'est son son pouvoir. il a encore montré au Sénégal quelque chose boo xam ne dañ ko war a graver dans le mar pour di ko exiger le toute personne qui dirigera ce pays. Mhm. le président dans la constitution bi gars yi di sukkandiku di jël ay décisions. il a la possibilité dans cette constitution d'imposer sa décision. vous le savez foofu lañ ko doon xaar. ah foofu lañ ko doon xaar. xaar te defu ko. il di su je suis républicain je suis garant de ces institutions là donc je respecte parce que mu ngi jàngale pour le futur il nous donne là des garanties don d'un d'un chef d'État qui croit justement à la à ces institutions là qui doivent rester solides et stables donc magistrat yooyu mais daf leen jox seen warma def leen seen décision mu ne je prends acte et il s'est à sa exemple la parce que kii dem nii mënoon def leneen ah mhm. bu doon bu doon bakkanam parce que mënoon na def leneen bu doon fi mu fi ñu ko teg foofu la nekkoon mënoon na def leneen il ne l'a pas fait. Mhm. aujourd'hui autant ngay gis dans des pays qui nous donnent des leçons. Euh, prends la France et autres combien de fois le gouvernement fait, fait passer ces textes par force à l'Assemblée 49-3 et cetera donc toutes les constitutions ont oh, ce, ont oh, ce genre de mécanisme mais le président il a dit je suis je me mets au-dessus et justement je donne une leçon aussi de démocratie et de stabilité de nécessaire pour le futur jàppoo ko désaveu jóge ci conseil. mais xam nga moo nommé conseil boobu am déet. Hmm? oui dama ne encore dans la constitution. bi ñooñ di saytu moom am na possibilité aujourd'hui d'imposer ces ces ces ces décisions d'accord nañ ci loolu. mais il ne l'a pas fait. moi pour moi c'est une autre leçon. parce que bu ko defoon fi mu ne nii. parce que si cette crise persiste ñu bëri jàpp nañu ci lañ jëm. Mm-hmm. tas conseil boobu noonu waa PDS seen bëgg-bëgg mooy benn cour. Euh, cour voilà. te le débat mi ngi mi ngi mi mi ngi gën jukkan. man de man de président bi ma dégg. Mm-hmm. nee na il n'a aucune envie de faire usage de telles prérogatives qui sont les siennes. loolu laa dégg. Mm-hmm. qui sont les siennes c'est et moi voilà j'ai eu plusieurs exemples parce que ñun parfois aussi xam nga rek. li nga bëgg sa waa kër sa truc nga analyse sa niveau d' analyse nga jàpp ni non lii la ñu war a def boo ñëwee kooku i mais des choses yoo xam ne naan la lii Sénégal soxlawu ko mais lu Sénégal soxlawul nag benn Sénégalais waru ko soxla parce que moo ñu ëmb mhm. cette phrase là que les gens n'entendent pas qu'ils ne cessent de répéter mm -hmm. parce que le Sénégal est ouais. ça c'est très important et la loi d'amnistie monsieur le ministre vous étiez pour contre je n'ai je veux être moi je n'ai pas les les les les soubassements mm explications de cette loi mais sur un plan moral ak tout ce qui s'est passé je sais que ça s'est passé partout mais j'avoue que moi euh, euh, par exemple il ne faut pas que ça soit une prime à l'impunité quand même il y a eu des choses graves qui sont là Très nous grave. avons eu notamment des forces de défense et de sécurité qui ont été difficilement exposées notre justice des magistrats qui ont fait leur job et cetera mais moo tax ma sànq ma ne yaa a eu des yoo xam ne man leer na ma ni euh, li ko li ko li li en tout cas li pousse président mu dem ci loolu. Mhm. waruñu ko xeeb xëy na ëllëgee bu ñu xamee lépp lañu gën a mën a comprendre tey dañuy wax ni rek ci wàllu principe wala te gisin mais président boo xam ne tey quel intérêt il y a man je vous pose la question quel est l'intérêt du président de la République de moi je suis membre de son gouvernement je n'ai besoin d'aucune protection je le dis ici face aux Sénégalais et je sais que la plupart de mes comme ça donc bu ñu ko yóbbee foofu on se trompe mhm. d'accord li mu def lépp nii pas pas pacification boobu moo xam ne dem na ba mu jaral ko mu ne ñëw leen ngeen toog waxtaan mooy li nga wax sànq lu ngeen d'accord ma proposer ko conseil constitutionnel bu d'accord ñu dem ci mais je pense que démocratie en tout cas un démocrate mënul weesu loolu ci koo xam ne yow la ñu jox lenge yi nga mën a def mënoon na toog rek waa ji bi mu waxee mu jël décret. mais loolu a def. non loolu def après l' avis du conseil. Hmm. après l' avis du conseil. c' est à ça. d' accord alors aujourd'hui on parle de Diomaye candidat Diomaye prési président et Diomaye est toujours en prison. oui mais est ce que être candidat euh, est, est une euh, décision de justice qui vous libère. parce que mm-hmm. j'entends souvent les gens dire ouais euh, c'est-à-dire si on veut sortir de prison bu élection il faut être candidat il faire très attention hein. Mm-hmm. qu'on fasse très attention parce que encore tout à l'heure je vous ai dit il des organisations yoo xam ne ñoo ñëpp euh, euh, euh, <laughs> ou bien que mu gagné et que voilà qu'il soit en prison mais les Sénégalais c'est eux qui décident encore une fois Sénégal bu leen neexoon ñu ne élection du fi am. je vous dis tey si toutefois tey suñu demoon Diomaye euh, qu'il reste en prison ba ci jour élection yi. et que ñu dem Diomaye gagné au premier tour et que ñu gis ni que Diomaye est toujours en prison. ah je veux dire ce encore un autre une autre situation. le Sénégal n'a jamais vécu. il nous faudra un jour mais le Sénégal a beaucoup de choses oh qu'on n'a jamais vécu. Ah, mais ah, euh, ah, le Sénégal gagnerait à laisser libre le temps de la présidentielle. nous hmm. on a investi. quelqu'un qui était en prison hmm. hmm. mais les pouvoirs ne sont pas les mêmes. là c'est l'exécutif. mais c'est aux Sénégalais je dis encore euh, une fois. là la, la, la décision revient au peuple et ce peuple là qui vote depuis 1800 xawma lan ah c'est vrai que c'est pas 1883 voilà ça, oui. mais les, puissants occidentales du ñu normalement démocratie mais est-ce qu'on devrait pas se prononcer sur son cas euh, balaa élection yi di comme ça ñu non vous savez aujourd'hui quand même vous avez posé une question tout sur la loi d'amnistie mm-hmm. cette loi d'amnistie parce que Diomaye je ne maîtrise pas son dossier mais je crois. ça ne peut pas sortir il a eu une jonction entre lui et OS. waaw dañu Sonko jonction. donc donc dafay sortir au bout de six mois mais dañoo euh, jonction euh, dossier yi ba sama Ousmane Sonko. loolu ah, mais je crois qu'avec cette loi d'amnistie mhm. euh, je pense que ça règle ces questions là. mais toujours sur le cas Diomaye la récente décision du C du CNRA loolu moo ci sa xalaat. c'est ah, peut-être anti mais mais tout ça madame c'est le respect le temps d'antenne c'est celui du candidat. naturellement. donc c'est, voilà comme vous euh, parce que moi tout ça est confus pour moi les textes disent cela alors qu'il y a d'autres choses qui euh, contredisent. non boo defee leneen les euh, la les preuve. textes mm. aujourd'hui tey euh, Diomaye balaa ñu doon valider li nga xamante ne moom mooy euh, candidature am est-ce que loolu noonu yëpp waruñu ko woon vérifier. ou quoi que ce soit du genre wala ñu leeral askan wi ci ci loolu. bu dee bu dee kii valider. Mhm. candidature bi dañ ko la ñu laaj. pour mu valider. Mhm. parce que j'ai entendu. par exemple dix mentions. Ouais, j'ai mhm. entendu beaucoup de gens parler par exemple de la nationalité. sachant que benn bu mën a basculer à tout moment ou bien. sur son cas par rapport ak euh, li nga xamante ne moom lañ ko euh, en prison on peut le maintenir là-bas si toutefois euh, que dañ koy ou bien. je pense que son cas rentre dans le cadre de la loi d'amnistie je mhm. crois. Mm je crois. effectivement en février 2024 mais je veux dire par exemple mais euh, conseil constitutionnel ñoom dañ déclaration sur l'honneur lay jot. Mm-hmm. mais cette déclaration sur l'honneur vous pouvez pas peut-être la vérifier dans les vingt quatre heures les soixante douze jours ou je mais am na bu ñu mënoon vérifier te vérifier wuñ ko. savoir lire et français. Oui. là on nous parle contre lui. Mm-hmm. mais boo ko déggee muy wax français là dafa mel ne génn na ci li nga xam ne moom la sàkku. Mais moi, je l'ai entendu faire une émission et parler beaucoup en français. Hein. <laughs> vous appréciez le français qu'il a parlé Non, mais Vous avez Comme, lui-même, il disait. <laughs> xam nga ñun ñii. Mhm. boo ñu déggee ñu làkk anglais anglais bi dafa tax a suuf. <laughs> mais on va dire moyen wala machin on dit que lui écrit et cetera. Oui. bon parle euh, couramment je l'ai entendu défendre défendre ça d'ailleurs hier je crois dans une oui. émission en disant que voilà gars yi ñuy reproduire mooy accent wala xaw la. Mhm. nekkul foofu. Euh, Serigne Boub aujourd'hui bon voilà il est il est maire hein. Mm-hmm. la mm-hmm. Mm-hmm. condition est posée là-bas. une grande ville. non la condition est posée là-bas li nga wax nii. pour être maire. ci municipalité c'est posé là-bas. jàll na il a visé plus loin. ah oui ah monsieur le maire euh, vous avez été ministre de la pêche. tey jii nii gis nañu que ne a euh, la veille de la présidentielle les acteurs ñu ngi dajeek euh, pêcheurs yi di signé ab charte déglu nañu sax kenn sànq jon neen lépp lay annulé bu falo mm-hmm. yow bi nekkoon ministre de la pêche naka nga gisee loolu bun nag il a été premier ministre lu tax boobu laa njëkk a a a bàyyi na rakam maa ngi koy nuyu mais je veux dire quand même a beaucoup de candidats ils ont été voilà premier ministre de ceci ministre de l'intérieur etc li ñuy wax nii mënoon nañu ko def dem ça aurait été plus crédible parce que dans la pêche comme man damay wax sama mbokk yi parce que ci laa bokk able bu la damay wax toujours di tooj na sa bopp di métti ngay faj sa tànk doo ma sa wër mm-hmm. il ne faut pas continuer à indexer li nga xam ne c'est pas là-bas le problème ah parce que ceux qui disent ils vont annuler les accords de pêche l'accord de pêche benn la benn du ñaar du ñett mm-hmm. y en a yoo xam ne ñun dong ñoo ciy profiter l'accord qu'on a ak Mauritanie kan moo ci profité du Mauritanie. ñun ñoo fay dem di jël. du dëgg. Mhm. wala Cap Vert gii ñun ñoo ciy profité. c'est pour permettre à nos armateurs ici d'aller justement commencer à attaquer de nouvelles pêcheries telles que le thon boo xam ne Union européenne rek moo ko daan def. Mhm. accord boobu si dix mille tonnes de thon donc des espèces. hautement mhm. xam nga. hauturière euh, la migratrice en plus thon boobu ay bande la yu jóge ci sud bi di yéeg ba ay Maroc ak yooyu di ñëwaat du dëgg suivant les. ba temps boobu de deux choses da nga ciy am fistine wala doo ci am dara day romb di dem. Mhm, daf ñu romb rek. ok les accords avant ñun gars yi li ñu coow nii sa portait sur les les différentes pêcheries ya nga xam ne mais moo euh, su ñun loolu la ñu dundee mais loolu dañ ko dindi ci accords yi bàyyi dix mille tonnes bàyyi mille sept cent cinquante tonnes de merlu à à test expérimental man moo fa toogoon ba léegi loolu laa njëkk dindi mille sept cent cinquante yooyu. Mhm. man ma dernière année six mois Union européenne duggul suñu géej. jëlu fi dara. no du parce que dafa am fu ma leen téyoon six mois seen bateau nappul Sénégal. te hmm. mbokk yi gis nañ ni six mois yooyu li ñuy kaas ni soppeeku. Hmm. kon bu doon arrêt bi rek mooy solution bi. mais l'État le fait demain. le mal est plus profond. et moi j'ai si bu dee loolu rek la dis-leur que vous vous supprimez mais nag jeu dis à l'ensemble des candidats nos relations avec l'Union européenne elle est multiforme. Hmm. multisecteur au moment où on me faut supprimer ça c'est dix mille tonnes de thon on était en pleine Covid ma jël benn membre de l'Union européenne muy Allemagne nous avait fait un don de soixante milliards. Hmm. donc il faut que sénégalais aussi xam ni jiite am nañ ci aussi. voilà c'est un c'est un ensemble tout ce qu'on réalise dans la pêche là souvent ça vient de ces dons là ay quai yu ñuy defar rek. Hmm. j'avais un don de trois milliards du Japon pour un quai. <laughs> voilà à Mbour là-bas mais les acteurs n'étaient pas tellement d'accord. que monsieur le ministre vous n'êtes pas d'accord qu'aujourd'hui le problème principal euh, du Sénégal est c'est que xamuñu réellement nan la ñuy gouverner et euh, gouverner être président euh, il y a des choses que ça implique. non moi je suis pas d'accord xamuñu nu ñuy gouverner aujourd'hui par exemple l'État du Sénégal est très participatif. Mhm. ce secteur yi les les ñu ma doon waxal ay USAID ñu ma doon wax ay wax si man mais. Mhm. je prends les CLPA. les comités locaux de pêche artisanale qui impliquent justement les accords dans les décisions et la gestion de la pêche artisanale mais état moo créé toute mm-hmm. toute euh, la, la commission nationale là de euh, consultative des licences état mm-hmm. moo créé Non, non, je suis d'accord, vous n'avez pas compris ma question. En fait, je parle des Sénégalais yi nga xamante ne tey dañuy jàkkaarloog nguur et que ñuy gis état di jël yenn décision yi sans pour autant savoir les raisons euh, exactes et pour que état par exemple comme ce qu'on reproche à, au président Macky ci reñam bi yëpp mooy ni que une certaine communication boo xamante ne euh, faillir na fa pour euh, tenir au courant les Sénégalais pour communiquer sur certaines choses loo xamante ne day tax ba Sénégalais yi xam ni que ah ndekete lii nii wëkk nii wëkk nii la demee. On peut toujours mieux faire. parce que la communication souvent aussi j'ai l'impression que dans l'action publique la communication souvent est un bouc émissaire lu am rek ñu ne way communication baaxul finalement on se demande d'ailleurs voilà quels sont les communicants ak lan moo war a communication baax mhm. ñu am ci responsabilité en tant qu'acteur ku ci ne ci liñ la dénk mhm. yow yaa war peut-être porte bu baax communication bu mhm. euh, ouais. la proximité avec euh, la population les et porter cette communication comme comme ni koy def au niveau décentralisé communal et autres moom moom nga war a def dans ton dans ton secteur mais j'avoue que boo xoolee tout le temps li ñuy reprocher ay njiit dañuy wax waxi communication fekk essayé nañ lu nekk nag mm-hmm. jël nañ ay communicants rax leen ay journalistes jël et cetera et souvent il y a toujours pas le bon mécanisme qu'ils trouvent pour gérer ces, ces cet aspect là mais euh, la légitimité elle se trouve dans la proximité mm-hmm. avec les ouais. gens ah, après ma leen ngeen ngeen ngeen jeexal yóbbante la ah. programme xëyu ndaw ñi vous êtes le ministre de l'environnement euh, Fatick lañ nekk nee nañu trois mois ngi nii agent eaux et forêts yi muraille verte jotuñu seen seen payoor ñu bëggoon a am ay leeral. Mm. bon là par exemple vous m'informez et c'est pas comme ça. Ah. parce que ñoom par exemple ils ont des directions. ils ont un ils ont tout mooy information bi ngay wax. Mm-hmm. du dëgg que les gens renouvelle et début d'année bi il y a eu beaucoup de difficultés par exemple avec les inspections du yoo xam ne euh, contrat yi tardé nañ fa parce que ils ne voulaient pas en regardant justement les textes ce il ne voulait pas signer les les, les valider les contrats mais loolu moment loolu bu ñu ko xam et puis nga début de budget aussi pour des comptes gens qui sont payés par des contractuels comme ça euh, parfois y a des difficultés mais ça par exemple c'est une info que vous me donnez que mm à la première je vais vérifier même en sortant d'ici mhm. parce que ñi ma ci interpellé bëri na ñaar ah, du benn du ñaar c'est arrivé parce que mhm. ñaari ah, ñaari kii yor euh, ay réunion mooy maintenant OFOR yi ak cette décentralisation OFOR bi parfois on a des problèmes Euh, ci perception yi wala ci contrat yi seen renouvellement et cetera. d'accord merci ma bàyyi leen. oui d'accord moi une <laughs> petite dernière question peut-être pour parler de votre euh, rôle de maire parce que c'est aussi. ci Nova Plateau voilà bëgguñu ma ñu en fait vraiment. plateau c'est ça et puis. Euh, bon la discrétion. <laughs> c'est ça dans la discrétion en venir à ça. en tout cas plateau on sait que l'une de vos forces de proposition c'est les logements sociaux j'en sais quelque chose. Euh, mais malheureusement l'information dont déjà Astou euh, parlait tout à l'heure les gens peinent à savoir comment naka lañ ci mën a am accès. est-ce que vous nous ci amagul lu bëri. Mhm. Euh, boo gisee may jublu ci loolu. Mhm. ma di di honnêtement sama askan amaguma ci solution yi. Mhm. ay pàcc solution la am. parce que li dama dem ba jàngat ni man sama askan. ñu ngi subir loo xam ne lu metti la. ce que j'appelle moi la rupture par l'immobilier mhm. maanaam mm -hmm. tous la jeune génération est obligée de quitter la commune c'est eh le mètre carré libre au plateau en moyenne c'est un million cinq cent si si fekk tabaxagoo ko le donc tey boo defee buggee def ay logement nga war a jënd rek mille mètres carrés regardez le terrain ce qu'il vaut mille mètres carrés c'est un milliard mhm. mille mètres carrés c'est un milliard man bi may jël mairie plateau budget am tollu loon milliard mhm. ces ces réalisations c'était dans les six cent huit cent millions donc voyez ce qu'on nous demande un peu mais lu ñu war a euh, toujours man bu ma naan plaider notamment auprès président wala ñeneen je disais man contrairement aux autres communes qui parfois peuvent s'agrandir mm -hmm. moi je n'ai que la mer non, non. c'est ça à la à Malick Sy j'ai Médina qui qui me, ferme tout et qui a les mêmes problèmes moi mm. donc le jeune aujourd'hui bi bu màgg tuuti jël soxna ba bëgg a defaru mais il est obligé d'aller à Kër Massar dem a xaw ma fan mais ay doomam yi juddu foofu ban attache la ñu am plateau. Mhm. donc man penc yi ma may yor aujourd'hui mais quasiment on se retrouve pour ay naqar wala bànneex mhm. après ku ne ngoon nga ñibbi. Mhm. donc ñu ngi tas quelque part sama askan. de ce point de vue ma ne on doit y apporter une réponse c'est vrai. j'ai pour montrer l'exemple j'ai construit vingt logements. oui des appartements euh, deux chambres salon cuisine et cetera yoo xam ne euh, aujourd'hui les gosses ils le payent à soixante quinze mille francs de loyer. parce que moi je suis mairie je cherche cherche pas de bénéfice. Mhm. mais loolu c'est à pour ñeneen ñi def ko. ah oui oui lu am solo la. de très beau logement. lu am en plus parce que bëggoon naa xale yi mënuñu louer lu ko dàq ci biir Plateau. mais c'est ça. Mhm. mais mu nekk mu gën a yaatu. maintenant on se bat trouver du foncier. Mhm. et j'avoue que euh, là am na yu am na yu ma commencé am parce que euh, vous voyez c'est très difficile la gestion moi je suis dans le gouvernement euh, quand pour un projet d'État on a pris fii. Amadou Assane Ndoye nekk xeex nañ ko ñu en tant que population. Mhm. Mhm. mais raison en tout cas projet d'intérêt national dem nañ ba président jox ma surface bu ñu dey. Mhm. boo xam ne euh, loolu man danaa voilà danaa ut les moyens ma tabax. Euh, bu ma génnee dans ces investissements lourds mu mel na ay Sandaga Sandaga quand même c'est neuf milliards. mais justement sa problème Barthélémy Dias yéen a ngi daje ba tey ah, waaw. non non pas de problème cest à comme je dis vous vous souvenez à chaque fois qu'on m'a interpellé sur ça dama ne Barth n'a le fond du dossier bés bu ko amee je le connais il parlera plus de sa mm-hmm. et puis le, le but c'est de réaliser des choses. Mm-hmm. qui profitent aux populations parce que ans dafa gaaw. donc le but mooy aujourd'hui man moom bu amee xaalis na indi mooy. <laughs> ma liggéey moom oui et lui il d'autres éléments d'ailleurs d'autres investissements au plateau yoo xam ne on on peut les euh, boucler les avancer rapidement. Euh, ma def ko moom moo ma gënal man ma def ko ak privé mm-hmm. parce que c'est la municipalité nous sommes membres aujourd'hui de Dakar. donc quand on peut mutualiser de, et d'ailleurs l'acte 3 de la décentralisation est écrite comme ça. Mm -hmm. c'est cette mutualisation. des communes moom la ñu. Euh, monsieur je vais rester euh, m'accentuer sur ce problème de foncier boo xamante ne actuellement euh, Sénégal yëpp a ngi koy jànkantool parce que ici à Dakar il est quasi plus il est quasi impossible de, de trouver un logement à Dakar même en loi en location dafa métti sax xamtuma ak jënd daanaka ñun ñi ñëpp. personne ne peut plus prétendre acheter à Dakar pour résoudre euh, ce problème de foncier qu'est-ce qu'il faut war nañ ci dimbale askan wi sonn nañ lool. parce que déjà Dakar ni mu dey. Mhm. attanul ñi fi nekk ñëpp. Mhm. Dakar on va être obligé gis nga léegi. R plus ngay dégg. parce que ah, R plus va créer d' problèmes. parce que mhm. ñu ngi souffrir d' embouteillage tout ce qu'on veut. oui quand on des tours sur la corniche. je dis aux gens mais ces voitures qui vont <laughs> j'entends moi le président Macky Sall quand il parle parce que quand on lui oppose on vient on discute on lui oppose ouais mais tel projet par exemple wala tel truc est cher sa réponse aujourd'hui c'est de vous dire ça c'est cher mais son utilité c'est au-dessus de tout maintenant quel est le coût selon vous de l'inaction le fait de ne pas faire mhm. Mhm. est-ce que vous avez mesuré l'inaction aujourd'hui on dit le terre est cher mais ce TER là quand il va arriver à Thiès vous pourrez habiter Thiès et venir travailler à Dakar donc il aura pas que le transport il aura ce logement dont vous parlez qui va être par ça le BRT permettra aux gens peut d'aller plus loin et de venir là où il de l'espace qu'on n'a pas aujourd'hui merci on va faire la nouvelle ville de Thiès et donc les gens pourront la deuxième partie merci beaucoup man baax na je suis baax na kontaan nañ trop ci ci recevoir la c'était un plaisir monsieur le ministre yaay sunu premier gan euh, Ramadan show année bii nga waroon a jàkkaarloog Maimouna Ndour Faye yàlla dogalu ko dama xarit la voilà on apprécie également sa taxawaay sa taxawaay ci ci ci biñ ko biñ ko biñ ko agressé vraiment non sama là j'ai pas j'étais allé à l'IHO mais il fallait que le colonel arrive bon j'ai pas voulu trop insister j'ai mm-hmm. vu sa maman Euh, depuis parce que des moments comme ça on a envie aussi de se retrouver donc euh, on reste un peu quand même mais vous avez été présent avec nous toute la journée ouais. la 7e. Oui, parce que comme je dis, moi, j'ai Maïmouna, c'est depuis Canal Info. Mm c'était logé dans ma commune. Et dama leen daan tooñ man leen man eh, deux heures rek la am sama commune. bu leen génn sama commune. <laughs> Hmm. bon parce que voilà. mais maa ngi koy ñaanal yàlla vraiment mu qu'elle retrouve euh, la plénitude de de ses capacités. Merci beaucoup. Et j'espère quand même que lumière aussi sera faite sur ce cas bu mu ko permettre rek euh, sunu mbokk mi mm. day def benn distribution de ndogu ci ci weeru koor gi ñaari fan voilà ma bàyyi la nga préciser ko rek donc en fait c'est la deuxième édition mm-hmm. édition mm-hmm. le 21 mars donc le point de l'aliment c'est au niveau du de la boulangerie jaune Sacré-Cœur donc voilà Sacré-Cœur donc on va essayer de distribuer des ndogu aux mm-hmm. passants dans les rues de Dakar par extension avant la fin du mois de Ramadan incha allah on ira à Thiès. voilà ñu la ciy wooyoo tamit monsieur le ministre. ah danaa ñëw incha allah ah, de. Ah, <laughs> merci beaucoup Khadija pour la bonne ah, boo ko defoon 26 nag mu neex mooy sama anniversaire. <laughs> moo tax maa ngi ñaan sénégalais yi ñu jox ma le plus le meilleur des cadeaux. waaw mooy en nous donnant la victoire au premier <laughs> tour de l' présidentielle. yàlla baax na. pour la stabilité de ce pays. incha allah merci beaucoup monsieur le ministre ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci teew bi nga xamante ne teewoon nga ko ci euh, plateau bi et on se Euh, Mamadou Awa yow aussi euh, maa ngi lay euh, jaajëfal bu baax a baax. merci beaucoup nous rendez-vous demain. demain on reçoit docteur Abdourahmane Diouf. bu awale bokk léegi coalition Diomaye président. Mm. coow li bëri na trop ci ralliement boobu dinañ ko waxtaanee demain incha allah. <laughs> a de quoi <laughs> on aura une discussion avec lui. Mm-hmm. donc demain vous l'aurez compris ki nga xamante ne moom la ñuy dalal mooy. am docteur docteur Abdourahmane Diouf moom la ñuy dalal demain incha allah. Mansour yow on se voit demain. incha allah monsieur le ministre Aliou Ndoye di la nuyu aussi tamit di ñaanal Maïmouna Ndour bu baax mi ngi noonu euh, Tabara yow aussi c'est un euh, plaisir de partager boo ma ko permettre le plaisir lundi on aura une surprise un invité boo xam ne ñëpp dinañ ko seetaan incha allah. ah bëgguma ci sori. <laughs> mais na ñëpp taxaw di xaar. ah ouais <laughs> lundi prochain. lundi prochain je vais communiquer là-dessus toute la semaine. toute la semaine je vais communiquer là-dessus. Amadou Ba si tu me le ah si tu me le si tu me le permets aussi. jërëjëf di di leen jaajëfal bu baax c'est toujours un plaisir de partager ce plateau avec vous particulièrement avec euh, Mamadou Awa mon partenaire. et aussi avec le maire de Plateau parce que man waa Plateau la d'une partie bon il mm-hmm. comprendra peut-être après et waa Plateau yëpp ñu ngi lay seetaan en tout cas oui oui <laughs> oui en tout cas maa ngi nuyu waa plateau yëpp. il faut en parler pour que les autres copient. <laughs> c'est ça man surtout logement yi moom vraiment bëgg naa ñeneen ñu copier ko. mais santé Verte Dene c'est la seule commune qui couvre sa population à 80 pour cent pour la santé et ça depuis et les euh, donc un, un, un coucou à Dakar Plateau et un bon rétablissement toujours à Maïmouna Ndouré aussi. Eh qui nous manque beaucoup sur le plateau. donc euh, maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen jox rendez-vous demain incha allah avec notre invité alors euh, soirée ji pare rek dañuy dem seetaan benn page de pub dalal la deuxième partie de Ramadan Show alors tey nag ñuy dalal nag mi ngi tudd bon déjà y a l'équipe qui sera là y aura Amadou y aura Sonia. avec